dañu ñëwoon fii juste ci pépinière bi ñun waa Youssou Ndour ci xol ak ci xel nga xam ne benn fans club la bu nekk ci Facebook bi ñu ñëwoon nag profité ci journée bi pour ñëw indil ndimbal xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci pépinière bi indil leen ay don ceeb diwlin lépp lu xale di soxla rek ñu jël ko boole ko indil leen ko ngir jàppale leen. xamne fi suñu dooma fi nek ak suñu rak bi mu ñëwee yaram yëpp dawna na li ma waral ne xalé lo def ci mom rek ñaakoo ko ku ñew fi ba gis li fi nek di nga def lo man ak lo mënut pour dimbali leen parce que biñ fi ñewé gis nañ yaram yu bari daw nan ñii ngi ñi mënu ñoo té seen bop li fi nek dafa daw yaram day waral ne li ñu def tay ji dañ koy xép lepp luñ def rek dañ koy xép pour ëlëk parce que boo ñëwee ba xam li fi nekk lépp lu la nit laaj na la si pépinière bi laa koy yóbbu di nga jël li nga man ak loo mënut def ko ci. li ñuy lancé ñi nga xam ne ñoo ko man ñuy ñëw jéem a ñëw fii malgré temps amut mais ñu del benn jour rek ñëw xool li fi nekk même boo indiwu dara nga ñëw xool li fi nekk dina tax boo ëllëgee boo demee boo tëddee dinga leen xalaat ñu ngi woo bon volonté yëpp ku ko man na fi ñëw. xool si xale yi ñu koy commencé si ki tax ñu jug mu Youssou nduur di ko wax malgré ñëpp xam na ne amul temps mais mu jëm fi ñëw doxantu fi rek xool li fi nekk bu ñëwee xool li fi nekk dina xam ne tey jii li ñu def nii ñun xeeb nañ ko ëllëg bu ñuy ñëwaat ñu jéem a yokkaat suñu doole jéem a jël li ñu man ak lu ñu mënul indi ko fii parce que fii ku fi ñëw Nous avons fait des choses. Nous avons de remercier ce que nous avons fait. Parce que nous avons fait des Et dès le discours du président de la République, nous avons fait la protection de l'enfant. Si vous avez la protection de l'enfant, déjà, ce que nous montre que nous avons fait des Pendant ce temps, je disais tout de suite que nous avons fait Nous en avons 150. Nous avons fait des choses. 90% de ce que nous avons il y a des gens malades ou handicapés. Et c'est la justice sénégalaise, moi je l'ai placée par OGP. région est presque négligée. Nous avons l'air, des fonctionnaires à partir de dons. Nous avons un budget pour 2 000 dollars. Mais nous ne pouvons pas nous dire que les légumes sont à moins 2400. 2 400. Calculer 30 boîtes de lait par jour, sans compter les rénés, les couches de la lessive xale nañ toggal ah, sertage agn reer ndiki dem marché jënd yap jënd jën di toggal on n'a pas ces moyens on n'a pas ces moyens sinon ndimbal yu doomu adama yi ñu fay ñew jappalé par contre néna a tout de suite pendant que le président de la République nga wax nañu protéger les enfants nañu accompagner les enfants actuellement ñi fi ñew xol xalé bay joy montre ils ont du cœur et pendant ce temps, nous, nous avons des problèmes. Moi, on a saisi nos voitures pour vendre aux enchères. Pourquoi Parce qu'un travailleur qui était là nous a traîné, traîné devant la justice. Les huissiers ont saisi nos voitures, de vendre aux enchères. Priver ces enfants qui ont besoin de ça, est-ce que c'est leur faute Actuellement, on n'aura plus de moyens pour transporter ces enfants. Fuminek, nous l'avons moi luñ suis buñ on sera obligé louer pour den yóbbu Nous lancer un appel en direction du ministre de la femme la petite enfance en direction du président de la République pour que ce cas-là vraiment puisse trouver une solution heureuse.